alif lam d'abord je vous reviens parce que Pape Alenia est déjà passé là je vais vous revenir pour vous expliquer réellement explicitement ce qui se passe pour le Gabon je ne suis pas à l'euphorie car beaucoup de frères africains m'ont appelé depuis le Gabon pour me dire que papa comment as fait non je n'ai rien fait Là où je suis, je reçois toutes sortes d'informations, que ça vient du Gabon, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, partout. Je reçois toutes sortes d'informations. Raison pour laquelle le lundi, j'étais sûr à 100% que la bongotisation est finie. Mais finie pour quel intérêt Et nos peuples, les peuples africains qui étaient au Gabon, étaient complètement dépassé par ces événements. Parce qu'en 2016, vous, peuple gabonais, quand les institutions gabonaises font ce qu'ils veulent, comme en 2016, quand les institutions gabonaises ont volé les élections, peuple gabonais, au lieu de détruire vos institutions, au lieu de vous attaquer à la police, mais non, vous vous êtes attaqué à des intérêts privés. Oui. Vous vous êtes attaqué aux étrangers qui ont investi là-bas. Est-ce les étrangers qui ont voté Est-ce qu'il y a des étrangers juges ou des étrangers policiers ou gendarmes Non, à ce que je crois. Aujourd'hui, vous avez fait votre boulot, vous Gabonais, et vous avez vu ces mêmes étrangers que vous avez mis en mal en 2016, qu'est-ce qu'ils ont fait le jour des élections, ce dimanche 26 Qu'est-ce qu'ils ont fait Toutes les boutiques, toutes les boutiques sont vidées. Il n'y a plus de marchandises dans les boutiques. Parce qu'il y a les événements de 2016 qui sont toujours là, qui sont dans leurs esprits. Africains, africaines, il faut qu'on se réveille, il faut que nous nous réveillons. Quand les institutions déconnent, c'est les institutions qui sont considérées comme la France et non nous le peuple, non. Quand les institutions foutent, il faut sanctionner les institutions et non nous frères africains, non. Et là, quand j'entends des politiciens, pour vous les Sénégalais, il y a l'Union européenne, certes, mais en France, il y a des cartes de séjour français, cartes de séjour belge, cartes de séjour allemande, cartes de séjour espagnole, cartes de séjour italien, cartes de séjour turc. Et pourtant, ils nous disent que c'est l'Union européenne. Nous, en Afrique, on va faire l'Union africaine. C'est-à-dire une union mal calculée, encore une fois, vive mon jeune frère, le colonel Assimi Goïta. Longue vie à toi. Gloire à toi, mon frère. Gloire à toi, mon colonel. Gloire à toi, mon colonel Assimi Goïta. Tu avais très tôt compris. Tu as très tôt vu ce qui va venir, ce qui allait se passer. très aussi que dans cette Afrique que nous sommes, pour monter une vraie union, il nous faut d'abord faire le recensement des étrangers, le recensement des vrais fils de ton pays, le recensement des fils natifs de ton pays. Ça, sur la constitution, sur la nouvelle constitution malienne. Le point là, ça m'avait un peu intrigué. Oui, ça m'avait un peu déboussolé, un peu. Mais aujourd'hui, en voyant ce qui s'est passé en 2016, en voyant ce qui, ce qui se passe actuellement en Afrique, en cas de problème, les peuples s'étapent. Pourtant, nous sommes tous noirs. Ici, en Europe, dans la diaspora, nous sommes unis on fait une seule force africaine. Pourquoi vous qui êtes là-bas, chez nous, pourquoi vous ne pouvez pas vous comporter comme nous Mais non, il y a toujours des pro-Ouattara. Il y a des pro-Bongo. Il y a des pro maké Il y a des pro-Alpha Condé. Il y a des pro, il y a des pro, il y a des pro, Non. Les jeunes, réveillez-vous. Vous êtes assez jeunes très intelligent, bien instruit. Vous avez des capacités, vous avez la carapace pour diriger l'Afrique. Les retraités ne peuvent plus gouverner. Non. Force reste à la jeunesse, oui. Force reste à la jeunesse. Là, je faisais mon sport. nous sommes le mercredi 31, je faisais mon sport. Là, nous sommes le jeudi 31 du mois. Là où Pape Alenia a compris que nous sommes dans un combat multipolaire et non dans un combat unipolaire. Le combat là, ça va, ça va prendre n'importe quelle envergure. Tout ce qui est bon pour combattre, on va le faire. Africains, Africaines, réveillons-nous encore. Le Gabon pense s'en sortir. Mais il fut des temps, c'est la France même qui faisait des coups d'État. C'est la France même qui imposait ses marionnettes militaires comme au Tchad, qu'est-ce qui s'est passé Il y a une marionnette militaire du Nord de Djabi qui débit fils, Mamad Déby, qui est pire que Idriss Déby. Il y a Macky Denis Sassou qui reste sur la liste. Paul Bia qui est sur la liste. Omar Mbalo qui est sur la liste. Adam Abaro qui est sur... Tous les présidents qui siègent à la CEDEAO, qui siègent à la doivent être défaits et sont à refaire et à enterrer vivants. On ne veut plus de ces vassaux africains. Non, on ne veut plus. Pourquoi Macron ose nous manquer de respect, ce petit pénis Pourquoi Macron, ce cul noir, ose nous manquer de respect Ose parler comme si les Africains étaient ses enfants. C'est très logique. Nous avons des gouvernants qui sont nos interlocuteurs directs et qui sont des voleurs. Quand ils viennent ici, ils dorment sur des hôtels 5 étoiles, là où ne peut pas dormir un ministre français. Ce que achète Amadou Sall, un ministre français ne peut pas l'acheter. Je ne vous dis pas le fils Un ministre français ne peut pas se payer la marchandise que se paie Amadou ou Marem Faisal ou Farbagom, le griot du président. Ça, un ministre français ne peut pas se payer ça. Donc on avance. Vous voulez que Macron respecte ce petit pénis de merde-là Vous voulez qu'il nous respecte Comment il va nous respecter Si nos interlocuteurs sont des bâtards, comment il va nous respecter Pape, allez Nous sommes dans une guerre froide est dans une guerre chaude, qu'on la vaille ou non. On vous dit guerre froide, guerre armée. C'est faux, il n'y a pas de guerre armée. Toutes les guerres sont des guerres. Il y a guerre froide, guerre chaude. Guerre armée, c'est une autre chose. Au Sénégal, nous sommes dans une guerre oh, oh, de tourbillon. Et il faut qu'on gagne cette guerre. Depuis le premier jour, je vous avais dit que Sonko avait prêté le flanc grève de la faim. Peuple africain, Sonko est en train de subir quelque chose qu'aucun opposant n'a subi. Anémie, insuffisance rénale. Maintenant, il a des problèmes cardiaques. Ce que je vous disais sur sa partie gauche, sa main gauche commençait à trembler. Ainsi que les gauches commençaient à taper. Maintenant, ça a pris une autre tournure. Dieu veut la vérité. Les médecins qui sont à la réanimation de l'hôpital principal ont fait savoir que d'ici 48 heures, si la situation ne bouge pas, même d'ici demain, si la situation ne bouge pas, comme je vous l'avais dit. Même si on libère Ousmane Sonko, il sera sorti en mode légume. Comme on le dit dans l'arme, on te fait en mode légume. Là, Ousmane Sonko est en train d'être paralysé. Il est en côté gauche. S'il sort, s'il marche avec des béquilles, nous tous on a tort. S'il sort et médicalement il ne tient plus debout, nous tous on aura tort. S'il sort sans ses facultés mentales, ni ses capacités mentales, on aura tort. S'il sort sans ses deux reins, on aura tort. Pourquoi on aura tort Pour le soigner d'urgence, il va falloir qu'on l'évacue. Et ça, ça ne sera pas la solution pour Ousmane Sonko. Il y en a qui donnent des millions sur le magal de Touba. Depuis l'autre jour, on vous le dit. Vous donnez des millions. On donne des mille. L'État prend nos combattants et les ramène là où ils veulent, à Touba. L'armée a organisé des colonies de vacances vous n'êtes pas au courant. L'armée nationale a organisé des colonies de vacances. Ce que Macky Sall avait supprimé en 2012, l'armée a repris cette année. On nous a bloqués de partout. Ce qui fait que là, on combat, mais à travers des sabotages. On va combattre, mais hein, à travers la synchronisation Tout bas. Macky Sall, avant-hier, il devait venir en France. Tout le monde était prêt à a découdre avec lui. Maroc, retour Sénégal, tout bas. Jérôme. <coughs> Jérôme Banyakake. Yen, Bayfal, Fall yi jël sen yéré. abal ko ñii ngén ko abal di ay homme de tenue suba wala gannaaw suba bu fi Macky Sall jaaré ñom ñu wayné Sonko na mën naa la ñii sol ay ñaxas comme yeen door ay xalé ray leen ci tour ay Baay Faal ngeen bëgg ne kenn du wax ci yoon bi pourtant kenn du wax ci yoon bi té tay li fa dugg pile si renseignement généraux mat 200 singon si boy yi dañoo wër a wër a wër ba mujjee jàkkaarloo kenn ki mu nekk Baye Fall type ñu né ma grand ni la fa démé effectivement déguisement Baye Fall yaa fa fess jël pour di xaar kuy sonkoriser Touba. yeen la jeunesse dara la leen ni ñaan xex day bari façon. mais koo fekk biir këram xeex ak mu gagné la day yom surtout bu amé ñukay jappalé code bi moy corniche Mbacké corniche Mbacké code bi moy l'arrivée de Macky il faut tout sonkoriser à partir de Thiès il faut tout sonkoriser Thiès ngir yalla participer Thiès bàyyi a affaire défaillant xam nga Thiès am na arrêt Diop défaillant léegi nag am na Thiès mooy seen boulevard bi ngeen di kii la promenade des défaillants Thiès xanaa nag suba di ngeen taxaw seen promenade bi wane ne vous pas des défaillants Thiès réagissez vous n'êtes pas des défaillants réagissez Sonko va mal il faut qu'on attaque màggal ou pas on va manifester vendredi samedi màggal ou pas on va manifester vendredi samedi. combat bi nag daa am foo xam ne biñ fa toll dafa bëri woon tóob maa ngi toujours ci Touba bi de daa fu nga xam ne dafa bëri woon tóob moo tax Pape Alé Niang màggal gi vendredi samedi dañuy manifester ba am na tóob yi nekk fii France daan publier te yéen ngeen ne da ngeen di dem màggal Touba. xanaa nag war ngeen mun def délégation dem ci sëriñ bi dem ci sëñ Muntaxa ne ko Mbàkke mu ne waaw nga ne ko ah ñiy jógee bitim réew ñi jóge tugal di ñëw sëriñ Touba andiw leen non astafurlaa du mos Macky Sall andiw leen Ousmane Sonko andiw leen Déthié Fall andiw leen Tahirou Sarr leen Mimi Touré andiw leen kenn andiw kenn andiw leen sëriñ Touba moo leen andi est-ce que am nañu kon droit ñu wàcc aéroport ñu jàpp leen ndax ñoom dañoo contre Macky Sall dañ doon manifester est-ce qu'ils ont ce droit non pourtant murit yaa ngi seetaan ñëpp ngi seetaan ñenn sax ñu ngi koy bàkkoo ça y la presse sëñ Bass Abdou Khadre yëg na ko pour lan affaire bi yeggul ci kaw. Touba nag ñu ngi wax yaa ngi ni dëggër bopp <coughs> sëñ Saliou Thioune maa ngi wax di waxaat man moom nee naa leen moom. <laughs> crime rek maa leen ko gën ñeme lu fa dal Touba lu fa mënti xew du suñu responsabilité yoon bi nag oto bu fa bënn man la je l'assume tuyaux yi ñu toj yaa ngeen koy nëbb di ko nëbb di ko nëbb ba tey am na ku ci def vidéo un certain Ali xaw ma naka xaar leen man moom daa am ñoo xam ne moom gayen Waly Diouf ngandam tóob la États-Unis la nekk xaw ma fal la nekk ngandam tóob la jaay na boo yu bëri si internet bi nee naa leen ku ciy jaayete nga nekk kaaw fii je te dénonce publier naa tey photom sama page Facebook koo koy Waly Diouf ngan di ndey do fi tóob à ma grande surprise xaritu xaw ma ban doomu ministron la dagg sama vidéo nee Marisanya, Guy Marius wax moy keroog bi gi Marius Sagna defee conférence de presse bi ni yi ñu toj c'est pas normal bien public la bama ñew ñëw ne ko tëjal ndey Salamine sa yon nekk ci waro ci won sax wax ndax si combat lañ nekk ku nekk si combat amna yenn yi xol geumal Macky Sall ngi ray nit ni sanni leen ci geej gi Macky Sall ngi def lu ko neex te kenn waxul lolu ngeen waron wax je signe je persiste yow ak gii laa yemale gii dafa commencé politique moo tax gëmatum ko yéen ñaar laa yemale man kuy politique moo may xoola ku ma newul kaa ñu xeex wala ma toj antenne wala ñu dóor palais bi kër naat mu toj ñu naan ma ay war leen ko def ak institution la quel genre d' institution on a respectons nous quand même te du yéen topi silence allez chercher quelque chose à faire allez chercher quelque chose à faire je vous en prie tey def naa ko manifestation Youssou Ndour benn George Floyd américain dee comme Youssou Ndour du ma leen nëbb moom Illuminati la moom moo raw ñoom Macky Sall ñi ay garaat moom ci affaire franc-maçon moom je ne vous le cache pas moom américain la c'est un anglais Youssou Ndour fi mu bokk ñoom Macky duñ fa noos si George Floyd ñaata tànkam la teg tegul tànkam moom démonstré fépp man waxuma la George Floyd ñun quatre-vingt-cinq morts léegi ñun bu ñuy manifester nañ teg ñaari tànk yëpp war a ne ñun suñuy morts ñun Sénégal ñun jeexal nañ on a fini on a seen nombre de morts bu ñu neexee sukk def laay rien que pour la mémoire de nos morts xeex bi foog ñu jëlee ko façon ba présent façon ba félicitation la diaspora yéen ñi nekkoon tey yëpp ci kaw félicitation la jaspora lenn rek la leen ñaan bëgg xex bañ xex té vendredi samedi ñu ngi parewaat takkarnaasel bagages yi day takkarnaase té fakk mu takkarnaase comme niñ def weekend bi passé policiers yeeg gendarme yi foog ñu liggéey loo ñom nak ñoy magali ah ñun dañuy xex ku magali ya xam ku wul ya xam ñun dañuy xeex yéen ñuy dugg fii kaw ku dem ñu jàpp la ñun dañuy xeex sincèrement dañuy xeex waaw taluñu ay màggal yooyu dañuy xeex li ma leen waxoon rek kaso bi gaa yaa ngi gën a jàpp ndekete ku leen ni li fa nekk lii la ci prisonnier moment bi sincèrement romb na 1200 ku leen ni lii mu romb na 1200 di dem ñun dañuy xeex ndax dañuy génnee ji ñooñu. Casamance bëggoon nañu màggal si mais xam nañ ne bu ñu màggal si daañu jàpp ñu bëri seen Baay Faal yi daan nañu màggal si ñun dañuy xeex te yéen xam ngeen ne dañuy xeex barki Sëñ Tuubaa dañuy xeex. vulcanisateur yi maa ngi waxaat rek gars yi dañuy xeex xam naa bu baax lu may wax dañuy xeex. remobilisation bi kenn mënu ko tere waxaat. remobilisation bi des troupes kenn mënu ma ko téré waxat gars yi génn leen ñu dajé xex li mu jeex li ngeen di wër ñu tecc seeni doom ngeen di wër kër sëriñ gemul di ñaan njekk Macky Sall gëmul loolu taxaw di wax di ko rafetal Macky Sall gëmul loolu am ño xam damay wax comme ku ci melni Ali Diouf seytane bobu nan ma lan Sonko fu mu toj manako ko yow la Macky toj non Macky Sall moo defar lan lan lañ ma wax stade ba ma ne ko waaw d' accord Macky Sall moo toj jam ñaado waaw d' accord na def fa centre Abdou Diouf def fa stade waaw mais Macky moo toj justice façon toj boo xam ne Sénégal moment yi mooy peuple boo xam ne c' peuple boo xam moment bi soxlaatul armée defal ko coup d' état Sénégal la dal Macky Sall yaa toj loolu li nga toj ci institution def ko ci kaso bi mosul am ci histoire du Sénégal li nga def nii ça n'a jamais eu fu Macky Sall toj Macky Sall toj fen Macky Sall toj toj mille milliards séddale ko gars yi jënd ay armam Macky Sall rey ñi ay nit nii froidement ak ñun Macky bi ñu xamoon ngela ne ma fan la Macky Sall toj yéen kon ay stade Diamniadio ngeen may xooli su mille milliards yi nag procès Mame Mbaye bi nag nit ñi ñu rey nag su ma waxee kilifa temps yi non faut respecter Il y' a pas de militaire au Sénégal il y' a pas de gradé oh les hommes de troupes, je vous lance encore un appel solennel Afrique yep. ñu ngi leen di saaga et c'est normal Sénégal suñu gradé yëpp France moo leen di former Saint-Syrien lañ suñu généraux yi ay Saint-Syrien lañ boole ci complexe qu'ils sont dem leen kër yët naa yi ndaw ndawaan yi waxuma leen kii de.

du ma mos a ak yéen jamais de la vie wala nga dajeeg ab sénégalais mu ànd ak doom bu ñuul kook tun gi ñuul kook papam ñuul kook mun la déggul wolof quelle honte ñooñu noonu genre boobu noonu xeet boobu noonu soxlaatuñ leen ci manifestation yi balaa ngeen génn manifester changé leen seen biir kër soppi leen seen mentalité doom yi war leen ne ay africain ngeen vous méritez d'être des noirs am geen langue maternelle mais moo xool lan moo bon ci Europe bi ak ñun immigré déraciné yi xam nga lan mooy seen plaignant moment bi fan mooy suñu terre où est notre terre nous les immigrés vous savez que un immigré si tu fais plus de cinq ans t'as de terre boo ñibbee sa dëkk boo leen demee Sénégal lan lañ lay wax kañ ngay ñibbi boo ñëwee fii ne fii amul dund kañ laay dem vacances fan fa fan lañ dëkk suñuy doom màgg fi ba am 18 ans def toj-toj tubaab ne da koy dàq réew mi ban réew la koy dàq te xale bi ban culture la am. kañ la xale bi nekk sénégalaise kañ la nekk ivoirien kañ la nekk malien noir nit ku ñuul ni ñu jël complexe teg ko fële xeex bi ku am looy sikki sàkk wala looy complexe xoola on te dépose à côté ku yaakaar ne nous les africains on ne peut pas ngir yàlla rek bu ñëwati suñu xeex xaar ñu tuuti ku yaakaar ni xeex bi xeexu parti politique la toogal xaar ñu tuuti ndax Pape Alé Niang moment bi mu ngi koy gouverner à la place de Ousmane Sonko kon nous ne sommes pas des politiques dañ ñëw pour mbëkkante pour defalaat Sénégal jëriñ réew mi jëriñ suñu askan. te yéen jeunesse bi yéen rek a ci mun jàpp seen détermination seen dévouement gars yi foog ñu xeex xeex bi mu jeex. foog ñu xeex mu jeex xam naa lu may wax ba ay jënd pistolet booleen leen buggee ma jëndal leen sànq am na bu ma gis mais dafa yéeg man mamaay ragalatuma dara xam nga mamaay man lan laay ragal. xam nga la lay ragal suñu officiers yi jël xale yi yóbbu leen Casamance li ñuy waajal nii bu ñu attaqué Casamance xam leen ne khar nañ te ñu ngi ci màggal gi la ñuy xaar mu passé ñu ngi déployé booy yëpp di leen yóbbu Ziguinchor luy seen yoon si protéger bi xam nga loo leen war def jël armée gambienne delloo leen seeni fa te bañ dem taalaat Casamance naan ay Casamance dafa kii pour mën a dugal parce que lan yaa ngeen ni waaj a dugal délégation spéciale suñuy meeru Pastef ndax lan nanguwuñu plan B Pastef waxati naa de que de comme nanguwuñu plan bi ay délégation spéciale dina commencé dal. te xam nañ ne nag xeex bi fu mu jëm ni service de renseignement ils ont très bien informé Macky xam nañ ne dañuy xeex. ba taxna fi tam ñun ñi di live je ne vous le cache pas de vous tous man mom sama boy gendarme il m'ont averti boy vous perdez votre temps bul génnati billahi bu makki ñew c'est moi man ma diriger combat bi fi France ma len wax li maay diriger fi combat bi même bu direct de touriste c'est moi qui dirige kooku mom j'assume et je prends l'entière responsabilité barrière bu policier yi teg xam nga bi passé ñew nañ génnee ñu lacrymogène Bill, <laughs> bu ma connaissais mal man suma ñew policier yi dinañ liggéey par force Macky Sall bu la neexee dóoral bal blanc bu la neexee dooral bal bal réel fii France la boo dooree bal xoola raison d'état lañ koy def entre ñun noir garaawul ndax man xam naa ne métti metti yaag sa ñi nga àndal kum si jekku dinaa la defal bagage mission bi nag kiñ ko jox jaram fàttalikul ne sa mag même bu Macky Sall bi moo ko rey Libéria ah, booy fils fàttalikul de ton grand frère de même père et de même mère bañ a kii comme toi fa la deewee mission Libéria

sur 37 000 hommes kon a de troupe jël responsabilité armée bu caporal sergent ça, fa complément officier bu fetal ça, ça, des les jeunes intellectuels qui avaient intégré l'armée sénégalaise ça, les jeunes qui avaient compris siffler la fin de la récréation. Car la population sénégalaise compte sur vous pour rétablir la justice, mais pas l'ordre. Parce que nous sommes déjà dans le désordre et c'est déjà trop tard avec 85 morts. On ne peut plus vous applaudir, on ne va pas vous applaudir. Moi, je ne ferai pas partie des gens qui vont applaudir l'armée sénégalaise. Non. S'il tue Macky oui, si on me dit qu'on a exécuté Macky Sall, je vois son sang, Oui. Là, je vais jubiler à travers tout Paris. Là, si vous voulez, même si vous me convoquez pour me mettre 10 ans en prison, je rentre. Et j'assume. Mais faire un coup d'état, je vais sortir du jubilé, non. Le sang de Macky Sall, oui. Vous savez ce que je veux dire. Préparez-vous et sortez en masse vendredi samedi il faut qu'on libère Sonko quel que soit le prix à payer commencé na de ma sax wax xëy vous suba di ngeen ci jot commencé na am paralysé damay ragal Sonko génn doxee beeke Boy, réparer rien yomb na de mais problème neurologique ba ma vous waxoon dit, ba loxo bi commencé nañ gis carrément ba ci tànku gauche bi commencé na bàyyi pour mieux clair xif mo koy def ndax dafa ñak lek perfusion mënu ci lool dara paralysie bi c'est normal parce que c'est fini xif mo koy def boo yakare avocat yi billaay maa ngi wax rek amna ñu naan na avocat yi wa na avocat yi liggéey man xaar sax man ma péti bala ñu naan ma Pastef y a des voix autorisées parce que say da ngay wax ba paré am ñu la wo su suuf des soi-disant sous responsable naan la Pastef y a des voix autorisées té buñ leen bàyyi xex bi yéen ni ngeen surux non mën daal politique bi iñaan iñaan ak si sécurité li bi si nekk laa comprendre les gars regarde jàpp leen si xeex bi ñu génnee suñu état d'âme yi gagné ko si vite fait ça sera vite fait le la là vite bouclé jàppale leen booy am na booy yoo xam ne mënuñu dem màggal ñu ngi daaj laaj leen ñaata parent la seen doom mënatul ñibbi si seen i kër. ndax police mu ngi jaar seen kër di leen wër laaj leen ñaata ñoy ñooy ak seen dom xaju gudi ba xaju gudi après c'est fini dootu ñuko dégg laaj leen ñaata parents la seen dom daw duggu gambi ñi daw duggu Mauritanie ñi daw duggu Guinée Bissau leen c'est combien leen gi gis nga fo demander fa la xex bi tollu laaj leen gendarmerie police naka la ñuy monté palais ak laaj fan la Macky Sall di fanaan laaj leen Marème Faye Sall lu muy dund moment bi ak Marème Faye Sall lu mu def Macky Sall ba depuis mois de mars il draine énormément d'impuissance et de choses parce que loolu c'est privé ça ne regarde pas l'État les maladies que draine Macky Sall non ça ne regarde pas l'État si Amadou Sall laay tëjee ndax jabar yi naa faam ay dara ndeysaan <laughs> xale yu am diine sa grande sœur boobu damay dox ba dajeek moom ndax grand am jëkkëram di mooy sama grand la affaire étrangère yi lay joobee <laughs> moo tax dama dama dox ba desex ma muy jooy man moo Mollah Morgun liñ ko wax ma ne ko non attends attends attends man je connais Mollah man Mollah moom xam naa ne dama koy déglu Gatouso la liñ ko wax li mu wax si magu jabaru Amadou Sall nay leer de nay leer rek wax day farankulaay mbaa mu dëpp ñooñu jullite nañ seen baay actuellement mooy actuel xal xalif bu Njaasaan bu kuntiw bii waa Tëngéej xam ngeen lu may wax ndax yéen ñëpp kunta kunta ngeen bokk Mamadi ma may xool koo tudd tuuram mu saw mbaa mu puub eh Sénégal moo neex <laughs> vive la révolution ñun ñi tudd nañ ay gendarme yoo xam dañoo daw mais xale yooyu yéen gars yi yéen ñu nekk Sénégal di balancer information amna der yo xam amna der yo xam la wax naa yak amna der yo xam bo leen suturaalul yalla mo leen sutural du ñun